ñaareel bi nee na mooy nga yàggal sa jataay fa ngay jànge mel ni ab ni am tan mën a yàggee ci fa nga xam ne fa lay faje aajoom yow fa ngay jànge na nga fay yàggal sa jataay di déglu la nga jàngoon ak xamlu loo xamutoon ak laaj lu la lëndëmoon ko defee nag ak di ak di ca sàkk waale ngërëmal ka lay jàngal taalisuha aj ñetteel seen xirsun mooy xir xalaatala bi ci càkkutéefam la ka misli xirsil kal bi ni ki kem xiruk ab xaj fi matala bi ci càkkutéefam ñetteel bi mooy xam-xam bi ngay sàkku da nga ciy xir lool loo ci am rek xeeb ko bul def ko gaaw a doylu loo xam daal jàpp ne li nga xam doy na déedéet da ngay def rek loo xam rek mel ne xamoo dara waaw nga xam ne moom daal foo toll da nga ci gën a xir rek loo ci am rek xeeb ko mel ne xaj ni nga xam ne moom li xire ci la muy wut na nga ko yitteele rabiu xaaj ñeenteel seen xilmun mooy lewet nga mislil xir yi nekk kem am muus ñeenteel mooy na nga lewet neex deret ba mel ne muus xam nga muus bariwul bariwul njariñ waaye gis nga nit ñi niñ koy fonke di ko yor ci kër gi di ko tibbal añ ak reer di ko toppatoo te du leen defal dara daanaka waaye rek noonu mu lewete ak noonu mu mel rek looloo ko ko may kuy jàng xam-xam nag na jéem a amee ji koy muus jooju le xaamisu ha juróomeel seen idaabatul mooy saxal li sabri ñel muñ xani nisaay wal si jigéen ña assaari faati himami yadi way wëlbati ay yitte ka sabri xiin siiri niki muñu mbaam xoox bila taxamu miñ ci lu yitte woo bi ko juróomeel nee na mooy day mën a muñ bànneexu jigéen ñi nga xam ne moom la mbaam xoox mën a muñe bànneexu jigéen bu mu yàkkamti di wax naa damay daal di bàyyi njàng mi ndax takk sama doomi nijaay mbaa sama doomi ndey damay bañ moroom ma bàyyi mel noonu déedéet na farlu ci li muy def rek wut xam-xam bu baax a baax rek jigéen ñi moom duñ jeex saa yu àggalee li muy def rek daal di mën a am soxna incha allah saa di suha aji juróom-benneel seen sabru mooy muñ xalaa dullin ci toroxte abadan faaw sabra ximaarin kem muñu mbaam fatlubu na ngeen sàkkoo bisi ci yii arrachida jub ga ne juróom-benneel bi mooy nangoo muñ toroxte ni mbaam mën a muñe toroxte mbaam loo ko teg rek mu tegoo ko te lu am rek ci lekk mbaa naan mu doy ci moom wuute naag fas buy wut xam-xam nag lu ñuy sol mbaa lu ñuy lekk mbaa fu ñuy fatu muy fu ñuy tëdd ak a nekk loo ci am rek doyloo ko sëkk mën a muñ lool rek na moytoo jekki di wax naa war na ma am nangam war na ma mel nangam nangam laa war a sol nangam laa war di lekk fu mel nangam laa war a fatu yu mel noonu bu dee wut xam-xam bu mu ko faale na wut rek xam-xam bi mu jaral ko lu ne lu mu taseel rek muñ ko ba kere muy am li muy wut mu ne nag yii mu wax nii muy juróom benn bu ngeen bëggee xam-xam bu am njariñ da ngeen ku ni wute faslun li ab dog la fil xadd ci ñaaxe ñaaxe mooy soññe xalaa jihaadi nafsi ci jihaad ak bakkan day soññe ci bëreeg bakkan bu baax a baax dañ koo bàyyi ci ay caaxaan ak lam bëgg te di ko awale ci dëgg ak luy indi tuyaaba ruumoo na ngeen sàkku jihaad nafsi jihaad ak bakkan yaa shubbaanu yéen waxambaane yi falaku mooy ñel na leen xadan ci ëllëg bi ci jihaad jooju aljinaanu ajjana ya na ngeen di góorgóorlu ci bëreeg seen bakkan ndax bëreeg bakkan dana tax am ajjana bu ëllëgee man lam yakun ku nekkut mujaahidan di aji jihaat ak li nafsi yi ñeel bakkanam fa innahu naka moom laa yaxtawi du làq fawaida ay njariñ nee na koo xam du bëri bakkanam benn yoon koy bàyyi ci la ko neex rek kooku moom du mën a am mukk njariñ xaddul iraadati dëgg-dëggi ak taaluwe bi xawli saadati ci waxi sang ya tarkul muridi mooy bàyyi taalube ba maa la nga xamee ne xale yi nekkoon na ca alaada aada xëy na itam cosaan la doonoon maa huwa xale yi fil aadati xam ne kon man nga ni alhaada ci aada maanaam ci baax daa wax ne dëgg-dëgg yi ak taalibi moo di ki nga xam day wuti yàlla yu nit ñi aada woo ci jaxasoo nañ bëggee ak lekk nañ bëggee ak naane nañ bëggee nga xam ne suba am nañ aada woo lu ñuy lekk ñu ko tuddee ndéego ba ndékki bëccëg am nañ aada woo añ ngoon am nañ aada woo reer bu guddee am nañ aada woo lal tëdd ci waxtu sàngam yu mel noonu ak xeeti jaxasoo yépp moom mi wuti yàlla da koy bàyyi nga xam ne moom fu mu toll rek mi ngi yëngutu ci lu koy may ngërëmal boroomam bu dee lekk mbaa naan mbaa nelaw day xaara xaar ba nga xam ne wóor na ko ne loro na ci yii mu daal di cay faj rek aajoom yem ca képp jaxasoo itam da koy néewal lool tey jéem bépp jaxasoo ba muy jaxasoo rek muy bu am njariñ bu dee door a sóobu ci yoonu yàlla moom faaw mu sàmmoonteeg melo woowu nga xam ne lekkam naanam nelawam yépp yépp daal faj lor rek lay doon waaye du ko ca weesu jaxasoo mi tam mu néewal ko lool tey jéem jaxasoo ba di doon jaxasoo bu am njariñ su demee nag ba am yàlla boroomam nag ba gisatul li may boroomam nag moom dara du ko yàqalati incha allahu dana man di def yi yépp ni ki lekk lu neex mbaa naan ko ak jaxasoo yépp te du tax dara lor ko ca incha allah su maru jooxuhoo topp delloom ga nag ilal moxtaadi jëm ci lañu baaxoo xam lu wusool yi njëkk ak eggam kal irtidaadi mi ngi mel ni ak murtat nee na nag bu awee ci yoonu yàlla bañ ne tegu na ci yoonu ndax mi ngi bëri ba kanam la ca gën a bon nag mooy jekki-jekki delluwaat ci lam tàmmoon mel ne ku bàyyi jihaad ja léegi xës naaw ci yoon yi moom daa war a góorgóorlu rek sonne nopplu rek te bañ a taxaw bañ a deltu gannaaw waaye nag bu tàmbalee bëri ba kanam di bàyyi yii ñu wax léegi gannaaw ba mu jekki-jekki nag delluwaat ci lam aadoo woon mooy di jaxasoo nam ko neexe di lekk nam ko neexe di naan nam ko neexe di nelaw nam ko neexe loolu nee na nit ñu baax ñi ni murtat lañ ko jàppee dafa rëy ci ñoom lool ba dañ ko xaw a jàppee ne murtat wa man yadum ku sax xalaa jihaadi nafsi ci jihaat ak bakkan fa faaisun aji taxe la xinda xuloo lir ramsi fa wàccu bàmmeel ba boo ko taaraa muy xinda xuloo lir ramsi wala xinda xuloo li ramsin fa wàccu bàmmeel rek ba tey baax na nee ku sax ci bëri bakkanam di ko teg ci dëgg dañ ko topp ci la ko neex xëy na mu metti mën naa mi tam mu yàgg ndax daanaka diiru dundam lay doon waaye nag bis bu faatoo bu wàcc ci bàmmeel rek foofu lay noppaloo noflaay boo xam ne coono du ca toppati incha allah tuma isa xujjutum topp ndeem jàng ngeen ilal jihaad jëm ci jihaad ja faqaddimoo na ngeen jiital daala ñeent minal ahadi ca noon ya nee na li ma leen dénk léegi nag muy jihaad ak bakkan bu ngeen ci bëggee jëm nag na ngeen xam ne kon am na yent yoo xam ne ñoo war a jiitu ci bëre bi ci jihaad ji te waxoo moom jihaad jooju la xam riya sama dund mooy sama ngiñ al jihaadu mooy jihaad ja al akbaru ja gën a rëy kama ataanaa nag mën a dikkale al xabaru xibaar ba bi ci loolu an xum jële ci ñoom la xam riya sama dund mooy sama ngiñ mooy rek giñ naa ci sama dund nee na waat na ne jihaat ak bakkan mooy jihaat ji nga xam ne moo gën a rëy mu ne sax am nañu nettali ne yonante bi mas naa wax saxaaba yi ne leen bàyyi ko ngeen ci jihaat ja gën a ndaw jëm ci jihaat ji gën a mag te mooy jihaat ak bakkan fekk boobu dañoo bàyyi ko woon ci jihaat ci jees yi jihaat ak bakkan nag moo gën a diis moo gën a rëy moo gën a metti ndax jihaad ci joosi moom maanaam ci ngànnaay li ci ëpp du yàgg te it ku gëm yàlla ki koy def moom yaar yi moom faaw mu am ci lenn wala mu boole yaar yëpp mooy benn mu am ngañaay boole ngërëmul yàlla te moy aljana mbaa boog ñu ray ko bakkanam daanu mu daal di am aljana jihaad ji nga xam ne mooy jihaata bakkan nag moom manes na ne kenn ku ne na ab dundam tollu rek la diib jihaad ba war a yàggee te it moom lay baax rek mooy mu gañe bakkanam waaye su ko bakkanam gañee rek boo tuut mu jëm ca këruk safaan ba bu fekkee ne yërmande yàlla daba tëlu ko moo tax ñu wax nafsan mooy bakkan nag wa duniyan ak àdduna suma sheytaan topp seytaane lainan ku dikuñu rëbbu hawan ak bànneex fëkkuluhaa képp ci ñoom xadduwun ab noon la laayal yi nu bopp du nooy danewoon bu ngeen bëggee jihaad jihaad ji muy wax na ngeen jiital ñeenti noon yi mu ñeenti noon yi nag moom la wàññi noonu ci way woowu muy nit ki bakkanu boppam bi benn la ak àdduna ji muy dund ak seytaane mu bon mi nga xam ne amul benn liggéey bu may rek yàqal gu jëm ci yàlla ak bànneexu boppam nag ko defee muy ñeent yi kenn ku ci nekk noonu la boo xam ne daanaka du nooy benn yoon faaw nga jéem a bëreeg moom rek bu baax a baax lil kul li ñeel na kenn ku ne min humoo ci ñoom si junun ab kaso wa silaaxun ak ngànnaay fa add xiloo na ngeen leen dugal ca kaso ba wa kassiroo te ngeen dammate ngànnaay la fatas la moo kon na ngeen mucc nee na ñeenti noonu yi ku ci nekk am na kaso boo xam ne soo ko ci dugalee du la mën a gaañati waaye am na ngànnaayul boppam lu mu yore loo xam ne boo yeexee rek bu la ko songee daal lay bëgg a gañe kon na ngeen leen dugal ca seeni kaso ca dammate seeni ngànnaay bala ñu leen a gañe mu ñëw ci nag ci loolu ci kaso yeeg ngànnaay yi fan naf su bakkan ba tus janu def na ko tëje bil jooxi ci xiif ba ab tawili bay aji yàgg wa maa laxaa dee di ko ñeel xëy dun ab jéng yoon la nu boobu def na ko feeñal siwaaxu ndare moom bakkan moom nee na sa noon la boo xam ne kaso ba nga koy tëj ba du la mënal dara mooy saxu xiif te muy xiif bu digg doomu du nekk xiif bu ëpp boo xam ne day tax a tàggale sago mbaa day tax a wéré di mbaa dara day digg doomu rek kon nangoo xiif rek mooy li nga xam ne mooy yar bakkan ba mu yaru moom amul benn amma silaahuha ndaal ngànnaayam la allazi la nga xam ne xadd tam naxu baraana bu dana teree bi ci moom muridan aj na mu yàlla min hudan ci jub fa shibahun moo di ab reggaay ngànnaay li nga xam ne nag moom moom la bakkan amee te boo yeexee mu songe la ko daal lay gañe mooy rek regg xëy na sax regg goo xam day gind rek moom barewut ngaañ noonu waaye nag taqoo regg saa yu nekk moom li ci ëpp day tax rek bakkan bi gañale bu wér-wér wasijul duniya kasob àdduna xosalatul mooy beru bi xilmin ànd ak xam-xam wa xamalin ak jëfe li wajihi mootil fahmi ngir jëmmi yàlla mi aji joxe ak dégg àdduna moom nee na kaso bi nga koy tëj ba du la mën a lor mooy néewal ab jaxasoo boo fexee daal ba beru te laata ngay beru xam nga la nga war a xam nga beru di ko jëfe rek nag loolu daal boo ko defee rek àdduna meneen tëñ ko kaso boo xam ne mënulaa lorate amasilahuha daal nganaayam la allësi la nga xam ne tu bii du dana alage bii ci moom fa huwa moom al muxaalatatu moo di ak jaxasonte fii xëy ni mu fii din ci ludul aji am njariñ jaxasoog waa àdduna jaxasoo wax mën naa ñàkk te amul njariñ boole ca loolu daal moom boo ko defee rek may nga àdduna ngànnaay lum lay songe daal lay bëgg a daaneel wa sijnu seytaanin kasob seytaane bilaa xilaafin sul benn wuute dikrul illaahi mooy tudd buur bi almaanihi ki aji fekk almuhaafi kay aji jàmmale ne kaso bi nga xam ne ci ngay tëj seytaane ba du la mën a lor mooy bari la fàttaliku yàlla bañ koo fàtte mukk di ko tudd ci saw làmmiñ te di ko teewlu ci sab xol loolu daal nee na boo ko defee rek tëj nga seytaane ci kaso boo xam du ca mën a génn ñëw lor la amma silaahu daal ngànnaayam la ëllësi la nga xam ne yasuulu dana songe bi ci ci moom muridan ab taalibe fa huwa moom alxufoolu mooy sàggan nee na ngànnaay li nga xam ne nag ci la la seytaan yi gaaw a songe daal lay bëgg a daaneel mooy rek sàggan ci tudd yàlla ak sàggan ci bàyyi ko xel di ko fàttaliku ne mi ngi lay gis loolu daal moom boo ko defee rek may nga seytaan doole ci sa bopp wa sijnu kaso ba lil xawaa ñeel bànneex sukkoot mooy noppi xamaa walis loo xam ne lay sa loxoo déet di ko ñeel faidatu njariñ wa naama ak xéewal bànneex moom nee na bànneex mooy bëgg loo xam ne amalu la njariñ bànneex nag moom kasa ba nga koy duwal ba du la lor muy téye soo làmmiñ ci jëpp wax ju amul tuyaaba bu fekkee da ngay téye soo làmmiñ daal ci jëpp wax ju amul tuyaaba daal di cëpp sa bànneex moom du la mën a lor amma si laa woowoon daal ngànnaayam la ëllësi la nga xam ne yasuulu dana songe bi ci moom soxsan jëmm fa kasratul kalaami moo di bari wax fil fudooli ci caaxaan ah nee na ngànnaay li nga xam ne ci la la sa bànneex di gaaw a gàññee lool lool nag mooy di bari say wax ci loo xam ne amul tuyaaba waxi caaxaan dong day tax sa bànneex gañe la rawante na nag wax ju aay moom dañ ko jëlale pas lu li ab dog la fil axdaa ci cër ya day bëgg a wax juróom-ñaari cër yi nga xam ne nit ki war na koo sàmm bu baax a baax ba bañ cee mooy yàlla wal tax fasoo na ngeen wattu al axda cër ya batnun mooy biir walisaan ak làmmeñ farjun ak sawukaay warij laani ak ñaari tànk waxay naani ak ñaari bët yeddaani ak ñaari loxo saabi xaa juróom-ñaari la seen udd naa ni mooy ñaari nopp man raxaa ku sàmm laxaa ñeel leen xanil maxaa si walis mooy ya kullixaa mboole seen yentafixaa mu jariñoo nee na juróom-ñaari cër yi na ngeen ko sàmm bu baax a baax muy biir ak làmmiñ ak sawukaay ñaari tànk yi nga wàññi ko benn ñaari bët yi nga wàññi ko benn ñaari loxo yi nga wàññi ko benn ñaari nopp yi nga wàññi ko benn nee na yii ku leen sàmm ba moyoo ci yàlla rek da nga jariñu teeg ëllëg fal kullu képp min xaa ci ñoom jumlatan mbir muy mboole seen xadd xaabalat jàkkaarloo naag baabal bunt mi ne niiraani ci sawara ya fii maa ci la nga xam ne xadd zabata sax na nee na juróom-ñaari cër yi benn cër bu ci nekk dafa am buntu sawara boo xam ne moom la jàkkaar lool waman yëkkun ku nekk xaafisaha di aji wattu leen laay du xulu du dugg laay du xulu du tàbbi baaban benn bunt minel bii baani ci bunt ya fii maa ca la nga xam ne yun xalu def na ko toxal nee na boo sàmmee juróom-ñaari cër yépp kon mucc nga ci mboolem bunti sawara yooyu doo ci dugg benn benn waman xasaaku mooy almawla buur bi bi xudd win ci ab cër abadan faw fa baabuha kon buntu cër boobee baabu xasaabihi mooy buntu mbugalam nga xadan ci ëllëg nee na ku mooy yàlla ci benn cër ci cër yi nag moom su fekkee yàlla jéggalu ko buntu ba nga xam ne moom moo jàkkaarloog cër booba moom waaja ca lay dugge sawara bu dee dugg sawara wa kullukum képp ci yéen nag yusal def na ko laaj xan raayin walis ak sàmm raxaagu sàmm na ko kama kama ataa naka dikkee bi ci loolu xadiisu man hadiisub ka nga xam ne waa wattu na mooy am na xam gu wér gu leer kenn ku ne ci yéen ab sàmm la boo xam daañu ko laaj la mu doon sàmm bu dee ilimaan ab sàmm la ci ñamu jiite boo léegi daañu ko laaj loola bu dee nit ci biir këram ak soxnaam ak i doomam boo léegi daañu ko laaj loola bu dee jigéen ju nekk ci néegub jëkkëram ba tey boo lëggee daañu ko laaj ndax taxawoon na ci taxawaay ba ci waram ndeet ba ab surga sax yor àlli sang ba sax daañu ko laaj ba xam boo lëggee defal na ca la ca waram ndeet mooy sàmmal na ko nam ko war a sàmmim ndeet ba tey sax doom bu yoree alali baayam daañu ko laaj boo lëggee ba xam ndax taxawoon na ca nam ca war a taxaweem ndeet nga xam ne kenn ku nekk daal ab sàmm nga wax ne boo lëggee daañu la laaj la nga doon sàmm ilimaan ji mu tudd jubluwu ci rekk ilimaan jay jiite julli ga maanaam képp koo xam ne kilifa nga woon am ñoo yilif rekk bu ëllëgee daañu la laaj ndax sàmm nga kilifteef ga ak njiit ga nga njiite woon ñooñee am déet daali na si yaxub addis ba ñi ñëwee ci saxiixul buxaari ak saxiixul muslim mooy kullukum raayin wa kullukum masulun an raayatihi fal imaamu raayin wa huwa masulun an raayatihi wa rajulu raayin fi ahlihi wa huwa masulun an raayatihi wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal ibnu ra'in fi mali abihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi kon nak mu tekkali cër yi benn benn cër bu nekk mu wax la na nga ci war a góorgóorloo faslu ndi ab dog la fi batni ci biir amal botoonu daal biir ya fax fa duha na ngeen leen wattu min xaraamin ci aj araam wa shubhatin akum lënt te naawu lënt ci yootu bilan fi saamin ci dul dog yene biir moom da nga koy sàmm bu baax a baax ba lépp loo ci dugal rek nga xam ko ne lu lew la loo ci sañ a def ni ki dara lu araam mbaa lu lënt moom nang ko moytoo jëfandikoo wajtahidoo na ngeen farlu fi talabil xalaali ci sàkku aji lew ja fa huwa moom allazi mooy la nga xam ne yarbaahu dana ko gërëm dul jalaali borom màgg ga na ngeen farlu ci am lu lew ndax nee na am lu lew mooy tax nga am gërëmul yàlla nga xam ne kon sàkk lu lew lu war la mënta ñàkk ndax ndegam mën laa ñàkk jëfandiku te lu lew rek nga sañee jëfandikoo kon wut lu lew mënta ñàkk wajtahidoo na ngeen farlu in niltumoo ndem am ngeen ko fiq ci saarin ci gàttañ lu xan sibahin walis regg fa indihoo naka moom ra suuxti raarin mooy bopp ak waru na ngeen góorgóorlu ci bu ngeen amee lu lew bañ koo yàq bañ àgg sax ci regg nga xam ne boo jëfandikoo faj sa lor rek daal taxaw yem foofa ndax nee na regg moom mooy bopp ak waru maanaam ci la bépp musiba di bàyyikoo ci la ak waru di bàyyikoo id ngir shibahu shakhsi rek gu jëm ja min al halal ci aji lew mabda akul di sharri moy tambalikaay yépp ay fil ahwali ci mbir ya ndax neena am lu lew lek ci bareg day melni ayut waye neena boko dé sét moy jur mbolem ay yépp yépp danaka ndax nit bu xifé day melne mbolem ciirem yépp dañoo regg nga xamne ci yépp dañuy def teg dal yomb awale ci yoon waaye nag bu biir bi xasee regg moom day mel ne mboolem cër yi ci des yépp dañoo maase ci xiif mooy kenn ku ci nekk rek am lu muy laaj loo xam ne boo ko ca toppee rek mu xañ la ngërëmul yàlla mbaa mu yóbbuli ca far ca safaan ba yoo jëlee ne regg ci lu araam mbaa lu lënt kooku teg nañ ko fee waaye regg ci lu lew ci boppam rek lañu wane ne lu bari ci xeeti musiba yeeg ay yi moo koy waral fii nekk na ci regg minal aafaati ci ay gàkk maa loo xam ne laa yu saa defu ko mën a takk te fii dana dikk min xaa ci ñoom surtout juróom benn xunaa fii li tux saa ngir bu dee fi ko lim nee na regg daal lim làmboo ci xeeti bon bon ak xeeti gàkk mënis ko wax lépp lépp waaye nag ñu jéem cee wàññi juróom benn taqsiyatul qulubi wawal xol ya ifsaadul xuqooli ak yàq xel ya ibtaaluhoo akuk yàqam xifzan ak mokkal yu saxihu kook dana wéral an nuqoola toxol ya bokk na ci ay musibaam moom regg mooy day tax sa xol wow nga xam ne buñ la waaree li lay waar du la dugg boo gisee loo xam soxla war na caa jeex am ci yërmande day mel ne doo ci am yërmande soxla du ca jeex loolu saxoo rek dana koy def ba tey day yàq am xel day tax saxel na war a neexe du na neexe rawante na bu saxoo rek saa yu nekk moom day mujj bu fekkee neexoon na xel tam day mujj xel bi day mel dafa naqari ba tey dana yàq ak mokkal loo am am ak mokkal bu fekkee da ngaa taqoo rek day mujj da nga mokkal lépp nga fëtt ko baabo nga fëtt ci lu bare bare kon yatta ngi noonu ci juróom benn yi nga xam ne ñoom lay wàññi wasiqalul aqdaay ak diisuk cër ya xan xibaadat walis jaamu yàlla wa xan xuloomin ak walis ay xam-xam xat xawat yooyu làq nañu ifaadatan njariñ ba tey saxoo rek day tax say cër diis ba doo sawar ci jaamu yàlla doo sax doo sawar ci benn xam-xam bu am njariñ way wi nga toll moom benn rek moo ci nekk mooy cër yi diis ba nga xamee ne du sawar ci jaamu yàlla du sawar ci sàkku xam-xam bu am njariñ wayam surute muy dimbale a seytaana seytaane kooku nag mooy juróomeel bi reg day tax seytaane gën a am ci yow doole wa yu xaw yi te muy dëgëral al lazzaati bànneex ya aydan ba tey kooku ne moo ko juróom benneel saxoo reg day tax sa bànneex gën laa gañe loo gën di xiif rek gën di mën a téye sa bopp gën di mën a sori sa bànneex waaye loo gën di reg rek nag moom sa bànneex gën lay gañe maanaam topp sa bànneex gën lay gañe ndax bakkan loo ko jox ci bànneex rek mu xeeb ko di yóotuwaat lu ko ëpp fax daroo na ngeen wattandiku ak alfaati gàkk ya mooy wattandiku leen gàkk yi mu tudd nii wa talabul xalaali sàkku aji lew fardun farata la yenta nii joj dana askanu li kulli muslimin jëm ci bépp julit bi xëy di waxee min ci luñ joomte nee na nag ndegam ab julit moom mënta ñàkk jëfandiku ndax nit rek la ni nit ñi te la muy jëfandikoo faaw daa war a lew kon nag sàkk lu lew farata la ci bépp julit laa yeen faxu du jariñ alxilmu xam-xam wala al xibaadatu du jaageenu jaamu yàlla bil ak li ànd ak lekk lil xaraam yi ñal aji araam xinda saadati fa sang ya gaa yu baax yi nee nañu loo bari bari ak jaamu yàlla ak loo sonn sonn ci xam-xam bul ca boole lekk lu araam bu fekkee da ngay jëfandikoo lu araam rek moom jaamu yàlla ga du am njariñ xam-xam ba itam noonu du am njariñ waxtariso na ngeen wattandiku minal lëfi ca la nga xam ne ay xantum wóolu ngeen bi kaw ni ci ak nekkam alxaraama di aji araam aw danantum wala ngeen jortu ko nee na lépp loo xam ne wóor na leen ne moom daa araam na ngeen ko sori lool lool bu baax a baax na ngeen jortu sax ne daa araam na ngeen ko moytu lu lënt sax na ngeen ko moytu rawante na nag lu la wóor ne araam na mbaa nga jortu ko wala takk tafoo na ngeen doyloo bi maa ci la nga xam ne yuqiimu dana taxawal asul ba ndigg la mina taxaami ci ñam li tutiixoo ngir ngeen mën a topp arraba boru ba bu ngeen amee lew ba ciy jëfandiku da ngeen jëfandiku rek ba mën a sàmm seen wéru yaram mooy lekk ba dëgër rek ndax mën a jaamu yàlla waaye nag bu leen lekk lu ëpp inna taxaama naka ñam malihun aji xoromu lay doon maanaam aji neex lay doon inda akil fa aji lekk laakin waaye yasiru day mujj baax na ca gannaaw ba raa itan di ay xayta xabiixan yu aji bon nee na ñam boo koy lekk nii mën naa neex waaye bul fàtte ne ci gimiñ gi rek lay neex bu ko see weesu gimiñ gi moom neexaay ba wéy na te it gannaaw ba nag day daal nekk lu diis ci sa biir bu baree baree day nekk lu diis ci sa biir bu reesee sopp ko ay xayta faaw nga dem génne ji ko moo tax daal ñam mënta ñàkk ndax doomi aadama yàllaa ko bindee lekk waaye booy jëfat waaye booy jëfandiku rek jëfandiku lu yem rek yem ca faslu li ab dog la fil lisaani ci làmmiñ amal lisaanu ndaal làmmiñ wa fax fasoofu na ngeen ko wattu abadan faaw mina samaaniyati juróom-ñett yatikum kon dikkal leen xuddan jub nee na làmmiñ moom am na juróom-ñett yoo xam war nga ko caa sàmm bu baax a baax bañ ko caa def alkis bi te mooy fen bi ci jëkk mooy na nga moytoo wax sa làmmiñ lu amut ndax boo waxee lu amul rek loolu mooy fen wal xiibati ak jëw jëw na nga ko moytu si làmmiñ baax a baax jëw nag mooy wax dara ci jëmm te da nga wax ci moom am na sax waaye bu ko déggan du ko neex moo xam sax daa ci jëmm ji ci boppam mbaa ci moomeelam ni ki bu dee mbubbam mbaa ab téeréem mbaa fasam mbaa këram mbaa dara lu aju ci moom daal loo ca wax rek loo xam ne am na sax waaye bu ko déggoon du ko neex kon loolu jëw la bu ca boolee far la nga wax amul nag day daal di nekk ak duural wala miraay ak werante werante ko moytu bu baax a baax werante mooy dégg-dégg ba noppi bañ koo nangu am loo cay tegaat ndax rek bëgg àdduna loolu werante lay indi te baaxut maxal ji daali ànd ak biijoo wala dàggente maanaam di dóorante ay lay moom ëpp naa def bu fekkee ci birum diine la bu amee luñ umpale mëne sa ko gëstu ndànk ànd yéene ju sell ba dëgg feeñ rek ñu bokk ko topp ay dóorante lay moom bu kee waxee kee weddi ko teg fa weneen lay wala ëpp naa def wa ministre saayin ak ci yejju yejju mooy reetaan reetaan kenn ci doomi aadama yi ëpp naa def ki wax yejju kon way woowu juróom a ngi ci wal xul fi ak war fil wax di ci ab dëxal di dëli loo xam naroo koo def ndaxam sax lu ma diggee def koom yàllaa ko man ndax yàlla man lépp waaye nag lépp luy digge na fekk rek nga nar ko waaye nag di digge loo xam naroo ko mbaa gannaaw ba naran nga ko sawaay gannaaw ba mën nga ko sortal te defoo ko loolu lépp war ab dëxal la kon na moytoo wax ci làmmiñam loo xam naru ko mbaa mu wax ko nar ko ba noppi gannaaw ba nag mu sàggan ca ba matalewu ko wala anil xalqi ak moolu mbindeef yi rëbbu mbindeef yi maanaam na moytoo rëbbu ci aw làmmiñam menn mbindeef ci ràññeel ndax doonte ab yéefar la lu mu bon bon rek xamul ba xam dañu wala bëtiku tuub jiitu ko ci yoonu yàlla am déet ndax xam nga ne Omar ibn Khattab am na jamono yoo xam ne nekkutoon ci lislaam te gis nga gannaaw bi mujj na boo tuddee Abubakar ci mboolem xeetu yonante bi moo ci topp rëbb moom manes na koo maasale ni ki nga ne yahood yi laxanahumul al yahudu laxanahumullaahu taala mbaa lu mel noonu waaye nag rëbb kenn ci ra ci ràññeel moom ëpp naa def taskiyatin nafsi ak sellal boppam mooy tagg sa bopp rek bi xawlil xaq ci wax yi dëgg ja bokk na ci yeñu aaye ci làmmiñ